laa xilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi qirat taati wa shadadi muazzaman inda rabbin la sharika lahu wa inda ahli tuqa wal hilmi war rashadi laa dilta ma hiya aw zarin wa xaadiya aw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 ñoo ngi amaan mbégte di àndaat ak yéen seen émission bi ñu duppee ëttu murit bokki ëttu murit ngeen di ko am alxames jot seen télévision Lamfal TV tey jii nag ñoo am mbégte ci dem ci ëtt boo xamante ne bii ku ko tudd xam ne ëttu murit saadix la ëtt boo xamante ne bii ñu yàgg ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul lañ waaye ku ko dugg de di ëttub xam-xam waaye di ëttub itam ëttub liggéey ban ëtt lañ nekk mooy ëttub Serigne Malick Bassine Sy ci kër eh, doomam ji nga xamante ne bii ku ne xam na ko ak njabootuk Serigne Touba gi lu ëpp ci njabootuk Serigne Touba gi jaare ci loxoom jànge fi waaye mooy murid saadeex doonoon jànkatub xasida di Serigne Moustapha Sy Serigne Moustapha Sy nag mooy wayjuru Serigne Modou Mbacké Sy mi nga xam ne xam ngeen taxawaayam ci yoon wi di jiite karawaanu Grand Magal de Touba waaye itam nekk itam ki nga xam ne mooy jëwriñu Serigne bi ci mbooleem représentant xalif général des mourides yi ci réew mi tey jii moom lañ nekk ci këram fas yéene ànd nag ak ay bokkam ñi ngi toog ak Serigne euh, Mor Astaka euh, si di doom ci sëriñ Malick Bassine si waaye di sëtub Serigne musa Ka moom lañ fas yéene seqal jataay bi bàyyi ko mu daal di nuyoo ak bokk yi dégg nga soog a leeral nag euh, sëñ Mor buñ bëggee xam kan sëriñ kan mooy sëriñ Moustapha si ana naka ngan ñu ko mën a xamale bi jaahi jaaril badii wa xadimi safi abdillahi wa xadimi rasulihi wa sallallahu wa sallam ala nabiil karim muhammadin wa alihi wa sahbihi bokki daal bokki taali bi bokki ngi nuyoo bu baax a baax nuyoo boo xam ne ko féete kaw muy nuyoo bu lislaam di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di siyaare kilifa teew te jëkke siyaare bi nag ci kilifa gu mag gi nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha moom moom siyaare bi moom lañ njëkk a siyaare ba noppi nag siyaare la kilifa yi teew yëpp daal di sant ci teewaay bi kilifa yi teew ñëpp ak ñi fi ñëw ñëpp sant seen taxawaay ndax ki nga xam ne moom lañuy defal waxtaan wi léegi ku ko mate la muy seex Mouhamadul Moustapha Sy Mourid Sadiq jànkaru Sëriñ Touba. boo xam ne Pastef kenn ëppale ko ko ci wàllu taalibe gi ci seere kilifa yi ñu ngi ko yàgg seere ci taalibe gi xasiida yi wane na ko te lum teel a tàmbali la lum jógee la naka jekk di ko def ay jëfam yëpp itam nag mooy lislaam rek aku taalibe bi dañ ba ñuy doon doon ay tuut tànk yu tuut lañ ko xamoon waaye lii rek musuñ gis su moom benn soppeeku boo xam ne daa dem bay mag soppi ku mel noona nañ xamoon ci moom ci jub ak bu baax ak taalibe ba ñu ndaw ñun bi ñu doonee ba mag fi moom it loolu lañ ci xamaat xamaatuñ ci leneen waxtaan yi nag résumé bi koy résumé di gàttal mooy tax daanaka ñu ko bëgg kii ci xaj waaye dañ ci sànni tuuti rek ñu ñu ngi nuyoo ñëpp nag ñu ngi nuyu ñëpp nag ci kii di delloo waa ji sëñ Fallou sëñ Fallou mi microphone bi ndax daf ne naa nuyoo rek mu door maa laaj. Mhm. ngi déglu li muy mhm. jërëjëf xam naa ginnaaw bu nuyoo bi matee ba noppi kàddu yi nga fi indi rek daa dañu ne teel tàmbalee xamal kenn jëm ci moom mooy kan waaye ngir nga mën a indi waxtaanu nit faw ñu jëmmi xam nit kooku mooy kan ñen ñoo di ay waajuram fan la jànge alxuraan fan la tarbiyewoo ak nan naka la dund dunde woon bàmba ji. bu ci xajee rek des na ko leer ba mu leer nañ sëriñ Moustapha Sy mooy borom jataay bi jànkatu xasida du sëriñ Tuubaa la bu ñëpp xam mu siiw lool ci xasida yi nag njaboot sëriñ Tuubaa gépp di bégg am njàngam te di ko déglu itam moom waajuram wu góor mooy sëriñ Malick Bassine Sy sëriñ Malick Bassine maam Moxtaar Penda Sy moo ko jur maam Moxtaar Penda Sy maam Demba Bunna foofu laa yéen ci wàllu boobu ndax mën na koo weesu waaye lu daa doy waajuram wu jigéen itam mooy soxna Faati Basin Camara soxna Faati Basin Camara mooy waajuram wu jigéen Camara nag ak yéen lu yàgg la seen diggante yàgg na ba tax na ba léegi sax nañ nañ ànde woon ca mag ñi ba léegi ñu ko ànde war rek ci dencante bi ak lépp rek Camara ak yéen yàgg nañ moo soxna Faati Basin Camara moom mooy waajuru Sëriñ Moustapha Sy amoon na càmmiñam ji ñuy wax Malick Bassine Camara ñooña ñoo jur waa Camara yii su fi xajoon danaa ko leeral wax ni demee waaye nag dama koy ub noonu bañ rajaat ko rek ma door ko wax soxna Faati Bassine bi mu ñëwee kër sëñ Malick Bassine moo fi taawloo soxana Fat si soxna Faati si mooy ab taawam bu góor mooy taawam bu jigéen boo xam ne taaw ci ndeyam la di taaw ci baayam soxna Fat tuut lañ ko daan wax ci bu njëkk mooy waajuru sëriñ Abdourahim Dem sëriñ Abdourahim Dem moom sëriñ Mat Dem ma ci njaareem soxna Faati si moom moo moo ko jur ba mu ca jógee mu tekki sëriñ Moodu Faati si sëriñ Moodu Faati mooy taw sëriñ Maali Baasin bu góor moo jëkk doon xalifaam wutu na ko loo xam ne mën na fanweeri at wala boog jege na ko daal fanweeri at mën na ko sax doo fee bàyyi ko sil nag la sëñ Modou Fatick mujj dëkk jaar na ci ay barab yu bari waaye sil fa la mujjoon a dëkk fa la bàyyi ko ñëw Touba ñibbi si Touba ba ci tegal sëñ Modou Fatick moomu mu tegaat ci sëriñ Aliou si sëriñ Aliou itam mooy ñetteelu doomam moom itam ah, ba sëñ Touba ba sëñ ba maa di dem gànnaar moom sëñ Mor at moom ma ca la feeñ ci jamono mooy amu bag sa sil amu sahid naa bi karamin amu bag sa sil Ah, ci la sëñ Aliou feeñ bokkoon na ca mbooloo ma sëñ Malick joxoon sëñ Touba ñu nekk ñu nekk njaari moom ci biir kër sëñ Touba gi moom fi la yaroo moom sëñ Aliou moom léppam la ko defee ba mu ca jógee mu tekke sëriñ Moustapha si mi nga xam ne moom la moom la saatloo mu soxna si sëriñ Moustapha si mooy am caatam moom la ci teg moom soxna Faati Basin ñoo ñu la am ci biir kër sëñ Malick Basin sëriñ Moustapha si mu ngi gaane jamono ñu ngi koy laajee ci atum hexasine hexasine nag ci waxi rab mooy mille trois cent vingt-cinq bu dee ci milaad yi mooy mille neuf cent sept da ko daan wax ci ay waxtaanam mu ne moom ak ñett ñi ñoo bokk ab lël sëriñ Abdul Asis ma ne woon tuwaawoon ak soxna benn fàllu ak sëriñ Mbàkki Madina nee ñeent ñoo maasee at moomu ci lañ feeñ ci milaadiya wàccoog ab liggéeyam itam résumé nañ ko waaye dañuy bàyyi ba ci mujj ga door leen ko wax sëñ Moussa yàlla dogal na waajuram wu góor waajuram waajuram wu jigéen ba muy wàcc bu liggéey booba sëñ Moussa wàccegul mbootu soxna maama Marème Mbacké yaay sëñ Mahmoudou si ma nekkoon Kura moo àggal liggéey boobu moom lañ ko sëñ Malick joxoon moo ko boot ba mu wàcc ci jàmm waaye sëñ Moussa def na ci wax ma wax na ma ci bis lu yéeme yéeme ndax dañuy waxtaan mu ne ma benn bis de laa masa xool sama ndey seetlu ko xoolub xàmmee ma ne ko ah mu ne woote booba ma ko xoolee damaa gis mu suuru mu suur gu rëy gu ñuy wax café loolu nag li ma ci yéem man mooy gannaaw moom wàccegut nan lay xàmmee nit ak la mu sol kon loola waaw kon loola damaa defe ne baatin am na ca ñàkku ca waaw loolu loolu laa ko teg man lool lool loolu dafa feeñal boppam te yëgu ko waaye loolu loolu wërtoon a mën nekk loolu nag mos na ma ko wax sëñ Moustapha Sy ci njàngam alxuraanam ngay wax sëñ Malick Bassine mi ko jur moo ko dalal alxuraan ba mu fendiku jaar na ci ay daara sax ndax xam naa mu door mu jébbal leen borom tubaa ci njaareem boole koog boole koog juróomi magam ñoo xam ne ñett ñi sëñ Moor moo leen jur waaye ñaar ñi ca des sëñ Maalik moo leen jur ñett ña lan dafa ne sëriñ Mbay Si doomi sëñ Moor Xari Si la sëñ Ibrahima Si Ibra Marema doomi sëñ Moor Xari Si la sëñ Moodu Marema doomi sëñ Moor Xari Si ñett ñii sëñ Moor moo leen jur sëñ Aliou si mooy màggi sëñ Moussa si ca liggéey liggéey boobu la bokkoon ak sëñ Modou Xari si ñoom ñett ñooñu sëñ Malick mooy seen wajur ñoom juróom-benn la sëñ Malick Bassine boole sëñ sëñ Malick boole kon jébbaleen borom Tuubaa fa njaareem ba ko joxee ñu boole ko ay téere yu bare bare bare jébbale waale leen ak téere ya bi sax mas nay waxtaan ak waa Bousso bi daal ne ah, ne leen seen bokk yi kat dikk nañ nag te desewuñ dara ndax doomi soxna su la joxee doom ja ak téere ba boobu kat deseetul dara te noonu la def boole seeni doom ak seeni téere jibbale ko mu ne ñoom day dikk nañ nag ndax doomi soxna kat bu la joxee doom ja ak téere ba ñu ne ah mu ne deseetul dara ba mu ko defee Sëriñ Tuubaa boole leen ñoom juróom-benn ñooñu jox leen Sëriñ Abdou Gaye Sëriñ Abdou Gaye ci magi yi kaamil la bokkoon mu yor leen ci daaraam daara sëñ Abdou Gaye lañ jàngee waaye si Moustapha si moom ah, sëñ Modou Fallou Gaye sëñ ci boppam moo ko jàngal moom alxuraan waaye lépp ci biir daara yi sëñ Abdou lañ jàngee ñun ñëpp ci ndigalal sëriñ bi itam sëñ Tuubaa waaye bañ jàngee alxuraan ba noppi itam war a jàng xam-xam sëñ Tuubaa dem na boole joxaat leen sëñ mat dem ci njaay dem sëñ ma dem moo leen jàngal xam-xam daal sëñ ma dem jooju itam buñ ci àggee mën nañoo leen a wax ñan la fa bokkaloon nekk ci ñoom daan nettali boppam ñoom la fa nekkaloon waaw ba ma nekk daal sëñ ma dem si njaay dem ñoom fa fekkante woon sëriñ Saliou Mbacke ca la bokkoon sëriñ Saliou Mbacke ma sëñ ca la bokkoon sëñ Mbacke Madina sëñ ma Madina itam fe fekkante woon nañ fa ay kilifa yu bari sëñ Seex Buso Fatikane ca la bokkoon ak sëñ Mbay si mii di doomi sëñ si ca la sëñ sëñ sëñ Mbay Buso Fara moom it ca la bokkoon ak sëñ Mor Mbay Sise ak kilifa yu bare bari ñun ñëpp daal daje woon nañ ci daara joojee mu daal ci nettali ay waxtaan yu bari yu ñu daan séq ñoomu neen ñoom waa daara ja njàngam xasaay yi itam si moom la siwee ku xam si Moussa si si Moussa si jànkatu xasaay la ñëpp di wax foofee ci daara si ma dem fa la ko tàmbalee wala boog fa la ëppee am njàng fa la ko daan defee daa njàngam xasaay mi ndax nee na da daan toog ba guddi rek mu takkaayu ne ci biir daara ji yëkkati di jàng xasida ñu di ko déglu ñu ko déglu di ci bég muy njàng mu kawe neex mu daa ko def foofu ca daara ca biir loola sax ca la amante kilifa yu bari ndax dañuy déglu njàng mi di ko bégee ma Massamba Mbacké mos na koy déglu mu jàng xasida ca biir daara njàng mu neex ba mu noppee ñu ne mu yónnee woolu ko ba mu dikkee mu ne ko dégg naa sa njàng mi de neex na lool waaye damaa bëggoon nga ñëw di ma ko defal ndax yooyu njàng ba mu ngay def man mii maa ko yeyoo ma dem yeewu ko nee na ma dem di ko jàngal def naa jàngal naa ko yoon daa naa ko jàngal waaye damaa wax saam dafa defee ne ma dem laay jàngal waaye man sëñ tubaa rek laay jàngal jàngalu ma kenn li tax li tax njàng mi wér na te mel ni mel bu koy jàng du am sago du tegoo lu man li tax roy ko jafe moom ku koy roy itam fa mu daan àgg doo fa àgg mooy li muy tegoo kenn mënu koo tegoo ku dul moom li muy jàngal sëñ tubaa rek a tax dëgg bi mu jox sëñ tubaa ci njàng mi moo tax du tegoolu man moo tax kenn mënu koo roy mu ne ko sa njàng mi maa ko yeyoo ma dem yeyoo ko mu ne man Sëñ rek laay jàngal jàngalu ma kenn koo may Sëñ moo taxoon waxu ko ko mu dégg waaye da ko wax ci am xelam rek digganteem ak doomi damay ubbuntu boobu bis boo ko laajee lu ci wax lu luñ ci mën a leeral danaa la ko wax. mënees na cee ñëw. ah ñëw. directement. waaw ah, kon kon baax na kon. Euh, digganteem ak Cheikh Abdoul Ahad lay jëkkee mujj na waaye so waaye lu yàgg la lu yàgg la ndax ca daara ja la woon lu yàgg la woon ndax ca daara ja ndax si Moussa nee dafa am bis sax dama gént am ndox wal ba tuur ba tooyal samay tànk ma yeew di defar café Cheikh Abdoul Ahad taxaw ci buntu bi ne asalaamaaleykum ne wa aleykum salaam ne bëri di ko jox loxo daraa jëm sol ne waa mbalañ sama tànk yi sama xel da gént nga mën a ah, kon lii laa géntoon <laughs> woo mi ngi ànd taalibe bu ñu wax mat jàng mu ubbi sama bufe bi tànn ci téere yi bëgg yëpp jox mat jàng mu téer ko lu ba ma yóbbu woon ma sant ne bañ naa nekk ba noppi mu daal jox mat jàng téere yi dañ ne nan dem si musa nan dem ñoom ñu ànd dem ca gaar ba mu ñaan ñetti paas yi ñu dikk Tuubaa am fi ay fan mu defaat ko ñu demaat Njaaréem am fa ay fan dikkaat Touba ba mu ay yoon yu baree baree bare yi dem ak Touba dem Touba ak Njaaréem ak dikk man dama doon seet rek si Moussa dama doon seet waaye xam naa ne murid saadix nga xam ne murid saadix dama la yewi tey daal di ne ko li ma la bëgg a dama la bëgg a defal lu sedd sa xol xanaa su ma la joxee këyit bii nga xam ne sëñ Touba ko bind yëkkati këyit wan ko ko daggit wii ci des nii fi la doon teg loxoom daa ji ak xalima ji moo ci doon bind xanaa su ma daggee këyit bi des bi bi sotti la mi doon sëñ Touba xëlim ak sëñ tubaa daay sëñ tubaa këyit ak sëñ tubaa mu dem sëñ tubaa ci loxol doomi sëñ tubaa xanaa kon soxol sedd ne ma ne ko waaw loolu la ko jox këyit woowa sëñ Moussa si maxtoo mi la ko defoon daf ñu ko daan wan ñu di ko jàng mu ne ba ma ko jox damaa gis mu def taalimul alimul xabir daa ni ibadatu rabbil alamin wa tilawatu kitaabi rabbil alamin wa tibaa sunnati xayril alamin wal ijtihaadu fi masali fi masali alamin xanil iltifaati ila mafasid alamin loolu la loola loola séqoon na ko ak Cheikh Abdoul Ahad kon séq-séq bi yàgg na lool lu bokkut ak séq-séq yi séq bi bi mu doonee xalifa ci digganteem ak kër gi ak tubaab bi ak dem beeg dikk beeg xaside yi lu bare bare loo xam ne lii mënees koo nettali lépp ma ci dagg lool rek digganteem ak Cheikh Mamadou Moussa itam lu yàgg la ndaxte da ko daan liggéeyloo ci biir kër gi ci defar téere yi sëñ Tuubaa yi mu fi bàyyi ak yeneen soxla yu ñu koy soxla woo nee naa téere yi nga xam ne sëñ Tuubaa dafa daan bokk nii ci loxoom léeg-léeg ñu fab ak xasida jox ko ko ab taalibi jox ko xasida mu jàng ko bokk ca pegg ba si Mourou Moussa dafa ma ko doon teggiloo ma di ko dajale di ko jox téere yu bari yu Sëñ bokkoon ci këyit bi ci pegg yi nee na man mi man la ko liggéeyloo maa ko bokk jox ko si Mourou Moussa dajale ko ci lu baree bari nee na téereb kii boobu ah, sëñ sëñ mu ne mu naan ataala xabsee fil fil atlal wa dimani boobu man maa ko bokkee fa ko Sëñ Tuubaa bokkee woon jox ko sëñ Mourou Moussa acteurs yu bare bare daana ko yebal ci ay yónneen yu bare yu ñu koy def loo mun ne Ahmadou Sakhir Mbaye mu mag moomee mas na faa ñëw ba muy ñëw tubaa man ñu la ko booleel moo ne ko damaa bëggoon nga wutal ma gone gu yaru baax mu gunge ma damay dem Touba mu boole ko ak man mii nee na sëñ Moussa ne jógee nañ jaare ba dikk Touba benn baat la wax benn yoon la wax dañu dem ba yàgg mu ma sëñ si ma ne ko Mbaye mu ne ma ñëy yéeme ma ne ah ma ne ko ñu yéem ma ne ah ma ne kooka amati yéem sëñ Bamba ma benn baat boobu la wax ci yoon bu njëkk tubaab waxaatu ñuy yéeme ka ñuy yéem man a mun ma kookaa mata yéem daan na sëñ Bamba ne sëñ Ahmadou Saxiir Mbay alkabir lool loolu la wax ci yoon wépp loolu wax bañ dikk bañ ba delluwaan njëriñ waxaatu nee na sëñ Mourou Moussa daal siqu nañ ay siq-siq yu bari yu bari yoo xam ne neexute nett li moom itam nee na toog nañ muy waxtaan mun xanaa yow de sa baay man loolu tudd ma ne ko waaw yow kay ku ñuy wax Moustapha la waaye ñu ñu la tuddewut mu tafa doonga lañ li siq daal lu bari la loolu la siq sëñ Fadilu Mbàkke yàgg lool sëñ Fadil itam noonu noonu la fonki woon sëñ Moussa ku ko na woon la ku bëggoon la nee dama damaa toog fii rek ndaw ñëw woo si ma ne ma kaay wuyu sëñ ma dem mu ne kooku Moussa si ma ne waaw man dooy Maali ma waaw noo la woo ne noo la woo ma ne ko waaw mu ne damaa bëggoon nga seere ma sama digg sëñ Tuubaa ma ne ko ah mu ne waaw koo mat rek damaa bëggoon nga seere ma sama digg sëñ Tuubaa dama koy tuubal bëgg nga seere ma ma ne ko a ah, mu ne da nga koo mat dëkk bi lool na loolu waaye ci doy maa bëgg nga seere ma ne maa ko waxoon na ko bientu bunu watee bi iraada ma ne ko waaw ma ne lakum li koy osa bi xarqil aada ma ne waaw mu ne li kay jooju laa koy tubal su ma yëgoon du ma ne ko dara li koy ji ma ko wax rek moom moom lay riccu di ko tubal seere ma ne ko seere naa ko ak yeneen yu bare bare mu ne dañuy toog ay yoon yoon te mu di ma wax waxtaan waxoon ne saa yu ne wax ma ko su ma ko waxee ren jii bu dee ne bu ma koy waxaat wala beneen toogaay toogaay mu di ko wax day mel ne daa fàtte ne xanaa waxoon na ko fàttiwu ko la muy sol ci man muy ak taalibe la bëgg mu ne ci man rek moo tax mu ne ko wax ko waxaat waaye fàtte du fàtte mu ne dañoo toog mu ne ma sëñ si ma ne ko Mbàkke mu ne ak rek am solo ma ne ne ba ñëwee Jolof sëñ Tuubaa dafa maa woo dafa woo sëñ Mbour Moussa woo man mile woo Cheikh Massamba woo sëñ Mor Xibisa bu ñu dikkee mu ne noo woo de ñu ne ko waaw mu ne damay bëgg waxtaan ak yéen ndax damay bañ bu ëllëgee ngeen am bett ñu ne ko waaw mu ne fii de li fi nekk mooy sama baay du ko maye mooy sama mag du ko maye mooy sama najaay du ko maye am lu ko maye daal ñu ne ah, ma jox sa bopp génn ca lu ñu diggal nga def ko lu ñu tere nga ba ko ne ba mu waxee loola sëñ Mbour Moussa daal raam jibul sëñ Fall ne ma itam raam jibul sëñ ma sàmm mu daal raam jibul sëñ ma rox yi daal jibul ñu daal delluwaat sa daara yi lañ amoon lépp ci yu rafet ak yu baax ñu indi ko jox ko jibul daal dina lu mun a wàññi nag mu ne ko ngeen raw fi nag mu ne loolu waxtaan woowu sëñ Fallou wax na ma ko ay yoon yoon yoon yoon yoon yoo xam ne saa bu ko waxee bu koy waxaat day mel ni fàtte woon na ne waxama waxoon na ma ko xam naa ma ne boo demee boobu daa bëgg ak taali bi sax ci man rek moo tax mu def loolu sëñ Moussa si sëriñ Fadul Mbacke da koo fonkoon lool sëriñ Fadul sax ci boppam sëñ Mor ak sëñ Malick la jëkk a fonk sax dafa fonkoon sëñ Mor sëñ Malick ndax nee na moo waxal boppam sëñ Fallou moo waxal boppam ne seen dëkk yooyee kat li ko dalee Busra Daaru Koungheul ba ngay dem Daaru Salaam Daaru Nahim Sil man na dëkk Kura ak mm, Ndaam ba ba Mbaabaan sëñ Fallou nee dëkk yooyee dikk naa ko ñaar fukki yoon ak juróom-yaar ci sama ci sama tànk wax dëgg bu ne teg naa ko sama tànk waaw sëñ dem na ko fa gànna ji loolu sëñ Fallou moo ko waxal boppam ca ba nga xamee ne sëñ Mael dem na mag ñi di jibulwaat sëñ Moxtaar moo ne ko sant nañ lool mu ko loo leen sante mu ko yaanu moom tey siqunoo kenn mu ne maa leen gën a war a sant man mi nga xam ne bëggoon leen moom dong na seen ma dikk fa ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar mu tëcc tey jii ma moom leen kon maa leen gën a sant bisab keroog la sëñ Fall wax loolu diggante bi ak sëñ Saliou Mbacke bu yàgg la moom itam gannaaw ñoo bokkan ca daara ca daara ja la woon ndax ba nekkee kër tañ ma dem dañ amlante woon amlante goo xam ne bu am solo la woon ca la ñu àndee woon ba ba nii ñu bokk màggat ñoom ñaar ba nii ñu bokk kenn ku ne doon sa xalifa sa kër baay ñu ñu ñu wi nee na kon ànd googu ànd gu yàgg la ñoo bokkoon daara di jàng ci sëñ mat dem sëñ Saaliw barab bu mu mas di sanc wala tukki yu mu daan def yëpp daana ci ànd si Moussa saa yu nekk fu mu jëm da ko defoon daal mbokk raw raw rawan rawatina taalibi gi mu xam ci moom waaye da koo jàppe woon bokk fonk ko lool di ànd ak moom ci lu bëree bëree bëri day mel ne day mel ne foofu ah. bu ñu dégloo bu baax a baax day mel ne njabootu sëñ Tuubaa yi hmm. kum ci jaxasoo da ngay mel ne nam jaxasoo woon ak kee hmm. mooy raw ni mu jaxasoo ko ci topp waaw kon day mel ne côté boobu itam bëggoon nañoo xam ni mu jaxasoo njabootu sañ Tuubaa gi nan la defoon ak ay bokkam nan la jaxasoo woon ak ay bokkam ak i bokkam ay bokkam itam teg ko fi ñu war a teg ndax itam sëñ Moussa dafa am dara ji ko yàlla jox joo xam ne ji ñu ngi ko jox bëriwuñ dëggu gi nga xam ne dëggu na ko ak gëm yàlla gi nga xam ne gëm na ko yàlla ak fonk gi nga xam ne fonk na ko ndigal al bi ma ma'ruf wan nahyi anil kenn da ko caa fekkul te bañ lu bonam dama ne sëñ Moussa bëgg xasida bëgg alxuraan ak bañ lu bon bëgg sëñ tubaab bañ tubaab la ko ca yàlla may mayu ko ñu bari hmm. loolu dong doy na ko sax loolu dong ak léppam daal léppam loolu loolu rek doy na ci moom ndax bon moom du ci rus kenn ak koo mën a doon boo doon kilifaam sax bu la séenee ci lu ñàkk solo ba muy dal ci sa kaw du ko tey du ko tey moo taxoon ñoom ñëpp ko begoon te fonkoon ko ngir lislaam fonk ko itam ngir taalibe ak taalibe itam liggéeyal Sëñ Tuubaa ak joxe addiya kenn musu ko ci amoon saa saa bu ñu saa joxe addiya ca kaw lay nekk ba ba tey jii sax rek joxe addiya moom Sëñ Musaa moom li mu ci mënoon ñu ko mën bëriwutoon waxtu wu ne rek rek bu buñ daan def sax ba nga xam ne léegi bëgg naa të day jaajuwaat rek defaat loo xam ne nii mooy mottali liggéey ba loolu def na ko ba tey addiye juñ doon joxe joxe ne ba mu demee ba ci mujj ga ab otom la ko mottalee na ko oto boo xam la rek ne naa ko ko yooyu yëpp mooy ku am ku amoon ak taalibe loolu noonu la ko ak bokkam yi nag fonkee woon moom itam noonu la fonkee woon bokk yi bokk yi bokk yi bokkal ñëpp ci wàllu seen ak camarade ñëpp noonu la noonu lañ ko jàppee noonu lañ ko fonkee ndax dafa dafa dafay nit ku baax daal koo xam ne daal mm, yombu daal ci lislaam ak taalibe moo tax ñu fonk ko moo taxoon man digg ma ak sëñ Saalihu lu lu sori la dem na bis ba si Moussa doon na jëwriñ ci daara sëñ Saalihu njàpp njàppandal waaw doon na doon na fa jëwriñ ay at wala ñaari at daal jiite daara yëpp jiite daara yëpp yore ko am na yoon yoo xam ne dañoo liggéey ban liggéey bi rafet lool nawet bi ba bëgg a àgg sëñ Saaliw wër nu ànd di wëri tool mu jiitu ma topp ci kawam muy dox ci biir tool yi dox ba yàgg mu ne jësub taxaw dane wël bu jàkkaaroon sëñ Moussa ma ne ko Mbàkke mu ne bu ma bàyyi kat nii laay jiitoo nga topp sama kaw nu dugg àjjana bu bàyyi kat nii laay jiitoo nga topp kaw nu dugg àjjana sëñ daan moom dane ko sëñ sa si fekk dañoo dañoo jógee da ko yóbbu beral di la si Tuubaa yóbbu ko beral di la si Tuubaa ba yoonu mujj wa nag mbedu saqar su jóge ci ci magasin bi jëm si biir kër gi ci lañ toll di dox di dox ba yàgg sëñ bi daal ne lëfar toog ak mbubam yooyu daanaka sëñ Moussa si mu ne ko Mbàkke liggéeyal nga sëñ Tuubaa ci xasaay liggéey boo xam ne bis pénc ba ku la xam rek loolu wax na ko ko xasida yi moom da ci am ay martaba yu bare bare jërëjëf euh, Serigne Mor Asta Kassi euh, ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ci jataay bu am solo bi nga xam ne andil nañu ko ci dunduk Serigne Moustapha Sy moom Serigne Malick basin si ñu dégg bokk yi waxtaan wi ni mu amee solo ak li mu ñu jàngale ci diggante Serigne Moustapha Sy ak xasiday Serigne Touba yi diggante Serigne Moustapha Sy ak njabootuk Serigne Touba gi diggante Serigne Moustapha Sy ak ay bokkam yaakaar naa ne loolu lu am solo lu leer nañ la kon bokk yi lii mooy premier numéro bi nga xam ne andil nañ leen ko ci Serigne Moustapha Sy incha allahu rabbi alxames bi di ñëw danañ àndaat ak yéen ci seen deuxième numéro ngeen di ca ànd ak ay bokki yoo xamante ne bii ak njabootam lañ ñoom ñu andi seen kàddu yu seere seen bokk taalibe Fallou Galass Syll moo àndoon ak yéen Eh, ci wàllu machine bi alaaji Fallou si la jàkkoo ak soxna Faati Fall wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nabi salli wal tusallim bi ihtiram ala nabi wal ali wa sahbi alkiram salatu silar silasimi samadi ala nabi wa ali wal humadi رد مكائد الهدى إلى الهدى يا من هباني بمخجل هدى أوصل لكل مسلم ومسلمة مغفرة يا من كباني سلامة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصحب مؤمنة مد لكل محسن ومحسنة أهلا بشارات ترى مستأذنة وجه لأمة رسول الله علي خير صلوات الله